waaye yow ba. waaw balaa yow ku la bàyyi yow daal nga ne woon da ngay génn keroog. ah mais dama paan dama doon préparé ja. <laughs> Amary Mbaye sax jaaxal na ko li tax gisuma. Amary Mbaye nee naa la demul liggéey Fat Sarr laa woo. di ko laaj day ñëw ci tour bi mu ne ma du ma ñëw ndax tey Amary liggéeyiwul may ma jàmm. mu yow a ñëw ci tour bi. mu yow Amary Mbaye du du Amary Mbaye samedi sax da ba arrêté xam naa ne samedi sax da koy liggéey. bilaay walaay taala ba da rek say amati sœur dam say xaw ma lan ak lan yow yow yow. amortisseur bu dama di oto bi dina daw. ah yow may ma jàmm. si yow ci si yow laa la wax say amortisseur yow. moo oh, dem moom dama ne signal bi feu yi lépp a nelaw dara tàkkul loolu laa doon dem ci amari pour mu defar ko. waaye bi nga yeewoo say sa lépp tàkk na ndax yow après da ngaa dugg ci oto bi ne nii rek ma gis lépp tàkk. ah du kon maay mécanicien bu mag bi. non du moteur ay feu laa la wax ay signal. ma ne yow feuille yeeg lépp a tax laa la ba dafoo ba génneel ci li nga ne. lu ma ne. man lan la ne. Hmm, xam naa lépp. lan la ne. dara néew dara. mooy yow. doxaan daal moom xam naa ne du am ci kër gi moom. loolu moom leer na ma. kan moo doxaan man yooyu maa ma doxaan. yooyu maa ko mar yow. xam nga lu ma bëgg. waaw. ma may ma xaalis ma dem ci Aïcha Diagne am tissu yu ma jënd am na tamit sama beneen xarit buy jaay sax ay tissu yu ma commandé woon. ay tissu. Hmm. ñaata la. ma ni Ndeye Ndiaye man cent mille dong. donc seqatuma ak affaire xaalis. cent mille dong ma ko mayee ma di jënd sama ah. soxla. ah d'accord pour kañ am na kenn koo xam ne commandé naa ko moom xam naa ne moom ma ko woowoon léegi mu mu kii. waaw ah, non garaaw comme da nga dem jëndi rek amul amul problème quoi. ma ah, ma woo ba moom la la man la xaar. non mais ci kanam laa lay jox xaalis bi quoi. waaw moom le temps fii ci kanam fii ay ay ay ay fii ay dix huit dix neuf heures mu baax na. Ah, ñëw ah ah am oh, problème waaw oh. waaw. <coughs> non man yow naa ne yi ngay wax ni yëpp sax waxu kisa rek yow doxaanoo kenn. ma ah, doxaan. yooyu man banaa yooyu <laughs> ma chérie ci loo ne baa yaa ngi si jàmm. naka mu naka waa Sudesad ah waaw gis naa Jeanne kay Jeanne gis naa ko moom waaw moom moo ma wax sax am nga arrivage bu bees moom moo ma ko waxoon ci <laughs> déedéet kay ah mère Maribu yaay eh, kon yéen seen koñ ba neex na Sudesad neex na de ah waaw loolu de moom. léegi xam nga lu ma bëggoon eh, loolaa nga ne lan danga am faru paa <laughs> yaa capable de man dama laa gëm bu coofee wala dama laa danga koo na wala xam nga nag lu ma bëgg nga mbaraanal ma ko ba mu set wecc gis nga ñii dañoo ñàkk fayda ñàkk jom dañuy yor seen jabar yu jongoma yu mel ni macha allah ñu wàcc ko ci kër gi ne dañuy dem doxaani te seen kër yi duñ fa def dara bu seen jabar laajee ñu ne amuma yow daal xam nga lu ma bëgg mbaraanal ma ko lu mu am lekk ko bu ko bàyyeeg un franc te bu ñëwee tëj ko ci néeg bi tucc tuccal ko ba ma mokk rumbax ba bu ñëwee biir këram am histoire ndax day ay ci ay jabaram xam naa ne ay jabaram bañ ah waaye léegi xam nga yow nu ñuy def léegi yow dama lay jox sama localisation nga ñëw fi pour sax ma présenté la waale sama jëkkër nga xamante ak moom xam nga moom moo may jox xaalis su ci moom laa toogal nii waa moom mooy wax nii si suuf waa. damay génn waa léegi ñu d'accord. amul benn problème léegi maa ngi lay lancé léegi sama localisation nga ñëw dee nga. waaw wuy ma li ma la wax bu ko fàtte de. mbaraanal ma ko ni bu ko yërëm amuñu benn fulla ak fayda dañoo ñàkk jom ñii man man daal ñii xaw ma yan façon nit lañ. damay damay oui ma. waaw d'accord waaw eh, maa lay xaar maa lay envoyé sama localisation nii waaw damay julli ji damay damay. ba sama xarit bi da laa doon waxal loolu laa dafa am benn paa bu koy doxaan fan yi nee naa ko ne ko maral ndax paa yi dañoo ñàkk fayda ñàkk jom amuñu benn fulla du ñu gérer seen biir kër yi lu ñu am jox ko jigéen ñi. yooyu yëpp du soo xamul paa ba da ko bëggam de. Ah. mais li ma lay wax mooy. bu ko bëggee te mu yor ay jéegam neen dafa am ay jéeg. loolu la waaw d'accord localisation laa ko envoyé. ñu ngi ñëw fii léegi xaalis bi nekkul surprise léegi te man damay génn waxtu yu jot na. damay génn waaw. boo ñëwee di ko fekk comprendre ah waaw heure boobu ñu di nga fekk loolu daal mi ngi ñëw ba xam nga lan la non loolu da ngay toog sax nag bul doon toogal xaar loola mi ngi damay la ndew lan la intéressé yéen a Cheikh ay jënd ak jaay sama xarit la man li ma mais na nekk sa tante li ma la xaalis nga jënd dem de ma dama ne ko yaa ngi fii toog doo dem de mais boo ko waxee la waaye yow ba man maa ay yaa moom ba ci maanaam mais dama samay soxla nag ma ne doxi woon bu ma doon réglé samay soxla loolu dinaa ko fay ma ne ba toogal xaar xam nga fi ma jëm fan ma ne toogal ay programme woon dama ko xaar ah. da ngay toog programme woon dem de kan programme ma ne demoo waaye dem ma fan damay ba génnoo kër gi de eh, kan lan waaye kii dama eh, eh, waaw waaw waaw eh ba nag ba eh ba ba xaaral may doxi samay soxla yow Ndeye Ndiaye lu ci soyoon sama sëy ba nga naan binom daa sonn euh, bàjjan daa sonn kër binom euh, binom da koy toroxal man ndey bi ma dikkee nuyu ma la ma sa néeg pour ma sax ci biir kër gi léegi da ngaa mënta bàyyi ay wax mën a bàyyi ay dugg ci biir kër gi néeg bu ne nga dugg fa def ko porte port porte li li kii naa visite pré présométrique ne dañ koy xamal ni ko politiciens yi defee noonu nga def dugg néeg bu ne nga dugg fa naan bàjjen bi dem da koy dóor am la ko naqar ki seen loo ci xam day loo ci xam bu nga dikkee sama kër gis nga ni ma tooge ah nit ñi mën a bàyyi nettali. baal nettali sama sóor bi nga ne madame juf Diouf nii baal ay wax yow fii nga toll war ngaa tal leneen ay jaxase ay nettali. da nga war a ñaan yàlla am am am am omi sedd guy tëjal sa ngaam yooyu du ma téye sama benn ngaam yàlla ak mbaaxam dinaa am omi sedd bi dama ne la gis nga yaa fi tëggooni tama yaa ngi may dégg bul ma indil benn problème nag man ngeen boobu ba tey yéen yow yow man sama lii lu baax laa ci jublu ba ma ñëwee sa kër yaa ma expliquer sa situation man xamaluma la dara ba ma gisee ni ma gisee nga koy sëyee moo man naqari man dereeta ma yëngal ndax seen kër gi de xës naa fi ba boq fi doo nekk nag say tolof tolof ak say difficulté may ñëw fii di la seetaan te sa mag ji mën ci dara maa ko wax léegi kan ak kan laay fëgg man bu ma nettale benn jég bu ma costoor sama benn maas ah. sama jëkkër laa am pour waxal te moom laa waxal ndax yéen a bokk ndey ak baay sa jëkkër fenkat bi ko xaw ma de man sama yoon nekku ci lu baax laa ci bëggoon ñëw mu wax ak sa jëkkër jee mu bàyyi ni mu lay torturé ndax lay torturé lan loolu si maa leen tare yéen am nañ am nañ dinaa lekk ba suur waaw dinaa naan ba mànd di leen ma téye téye bu baax yéen lekku leen naanu leen seen nelaw doyul su ma fi jógee ñëw fi ci kër gi damay cotiser ndax cotiser paa njaay ci paa loolu am ci biir kër gi. li fi néewoon ba tey dañut. xam nga lu ma bëgg nag gannaaw su tey à partir d'aujourd'hui sa tànk bii bu mu ñëw di ma seet. man sa kër man waaw dama waaw dama lay. bu fa ñëwati sa gam ñëw nga fa benn yoon. bu mu ñaar dégg nga. déggoo li ma la non bu mu ñaar day maa fay ñëw bu ma fa amee soxla dama fay ñëw ba mu neex na moom moo kër gi sëyaan dong nga fa. yow de eh, sama yoon nekk si xaw ma ko moom yow li man yow sax man maa ko def man maa gis nga nit danga koy yéene euh, jàmm muy wut téere cat danga koy yërëm muy wut téere cat yow ma yërëm la ngay ñëw fii naan man man ngay àttali kon nag sa sëy bu metti yaa ngi jeex tàq ah. nañu jàmm kat xam nga xam nga jeeg bu jeex du mel ni man mii sama jàmm yow li ngay dund ñun xam nañ yow yow yaa waaye nag baax na sa biir bi yow yaa jeex ba fa baax na li la dal sax baax na nag ndax li la dal yaa ko daan def ñu def la noonu gis nga nekkoon ci kër gi di tuuti tuuti say jabaru càmmi yoo gisa ko dara de gis nga fii njëkkee bu fi toroxal sa jabaru càmmi boo demee di nga gis njaajaa njaaj yow dimbali ma ma sa ñaar yooyu bila bi no liir nii kii kii dafa mën a fen mën a fen mën a fen mën a moom dina tax doom bi yoom day fen fenkat fenkat bu rëy nga ngi nag madame Elisabeth Diouf nii sim kii cette femme là maa rek tii maa tii maa tii maa sim ça va bien. yaa ngi si jàmm daal. maa ngi ne alhamdulilah ça va naka coono yi. ça va. oui d'ailleurs que xam naa ne man moom li ñuy gisante li ma lay faral di gis bariwul quoi mais nag mosuñu seq wax te loolu li la ko may mooy da nga jàpp sa njaamur franchement da nga jàpp sa njaamur da nga baax te ñi paa bi jur ñëpp yow yaa si gën ndax gis naa ni ku teey nga yaru nga say reetaan neex na fi nga ko téye foofu la daal franchement kontaan naa si yow bu baax a baax man nag. Euh, benn commerçant la commerçant bu mag euh, fii si diggu Thiès Thiaye parce que tamit euh, ay ay ay ay bi ma yoroon xam nga xaw na sax am ay problème tuuti xam naa war nga dégg loolu mais nag yàlla baax na ko mais sax affaire mariage bi moom bi nga doon wax noonu nu mu demee noonu ba xam fos toll. waaye bu daaw waay yaa ngi tagg de. Ah. waaye merci quand sama affaire mariage bi moom alhamdulilah géré naa lépp. man am naa ay copains yu nekk tribunal ah, ay ñoom maître Bey wala maître Elias yi franchement wala maître Amar tribunal moom loo fa soxla yaa ngi dégg bu waa ji bañee waxal ñu arrêté sëy bi lu mu gën a gaawee. lépp géré naa ko. ah c'est bien d'ailleurs maître Ama boobu ngay wax sax bi ma amee sama kii yenn xat-xat yi moom ma ko doon lijjanti. donc alhamdulilah. non maître Ama ku baax la c'est bien loolu baax na quoi loolu baax na franchement kontaan naa trop oui mais gisoo ne amul lu ma la bëgg a wax quoi. man mi gisoo dara lu ma la war a wax sama kanam. <laughs> bu daa nag xam nga man moom bari ma lu ma lay côtoyer. dëgg la dégg naa ne ku neex nga nag moom. non waaw waaw. <laughs> la nga ma war a wax maa gën a neex lem franchement. waaw sama tamaate quoi xadi. donc nii ak tuuti këccëg. ba tey jëliwuma li ngay wax de. jëliwoo li yow xam nga ceebu jën miin nga ko. bu baax. mais am na yu muy àndal benn affaire bu bari mbubu nii bu muy àndal tamit ànd ak carotte ay ñàmbeeg yooyu benn affaire bu bari bari mbubu. su nga wax ko ci tubaab moo xool. suur oh sama suur yaa ko waxal sa bopp nag hmm? yaa ko wax de man waxuma ko. Eh, eh? dëgg la. yaa ko wax de. Hmm. nga baal ma nag mais man waxuma ko de. Hmm? ba dama laa def lu la métti. déedéet. mosoo maa def lu ma métti. suur bi da lay déranger. déranger mu benn xew. yow bu daal di wokkatu bu dajee gersu la ci. wokkatu. bu dajee gersu. ba li nga wax. ndax lii nga ma wax nii. Ah. da kii rek xaw ma nuñ ko olof di waxee sàq mi xaw ma sama lañ ci xaw ma. Hmm, hmm? wax kay dégg nga ko nag bu daal nag. sàq mi sa lañ leerul de wax mu baax ma xam. bu daan nag bu dee da nga bëgg leneen nag nga wax ma ma wax la leneen li ma la wax kay dégg nga ko xanaa. kon fi mu toll nii daal gis nga ni daal man maa ngi sa ah. yaakaar loo hmm? yaakaar ni man damay gént wala. gént mu soo ah. gént. Hmm? yow bu daa ko am góor bu mel ni yow. waaw lan lay wax yow maanu nga. waaw réglé nga. Hmm. du góorlu sa yoon nekkul. baax nga. waaw lan laay doyee leneen. non man waaru naa quoi. ndekete lu waay lu waay foog ni baaxul rek nga sànni ko da nga kaa toppatoowul defaroo ko franchement xam nu may def lii moom xala damay dem wax sama yaay ne ko xadi bëgg na ma. tey nangu na. Hmm. ko mën a wax wax ko ko. Hmm. de. <laughs> <laughs> go jeune frère grand frère yaa ngi may yaa ngi man mii yaa ngi may seetaan vraiment yaa ngi may seetaan mbasu dama ne ci benn dilemme bu doy waar ne ci ay problème te ko man mi xam naa ni Badou la ko wax yow jàmm waaw amee problème boo ma ko waxee man ma taxaw ci yow xam naa loolu waaw mais lan mooy sa problème nag yooyu nag waaw lan la qu'est-ce qui se passe nga ko sama fii boobu di ñëw si kër gi xëy xëy un jour comme ça famille bi ñëw fi ñu wax wax wax ñu mu ni mu ni képp ni caam moo ma ëmbal yàq sama der ci dëkk bi sama am di jàmm samay mbokk yi sama nit ñi xoolal Assome Diatta ministre du commerce boobu. Hmm. waxoon ne daf may recevoir caam. waaw mënatumaa recevoir parce que sama der yàqu na ci dëkk bi madame Mbeng servir le Sénégal madame Mbeng waaw ne woon may defal benn envoi envoyé ba léegi ñëwul parce que xam naa ni dëgg dëgg dëgg yëg na ni caam daa ëmbal ah mais xam nga loolu jaar est-ce que loolu jaar na yow. Euh, caam xoolal arrête caam xam nga lan laa bëgg nga assumer mais caam assumer ses responsabilités. lan laay assumer mais xale bi yaa ko ëmbal. góob maa ëmbal xale bi si. man xale bi wax naa ak moom de caam yow it xale bi ci waañ wi ci ginnaaw limon nga ba ci raay bi sax mais yow train express bi yéen a ko teree daw. mais Gouye tu oses yow tu oses affirmer ça yow. assumer say yenn erreur yi warul laa dal bul erreur yi dal sa grand frère bu mu la dal bul fexe mu dal la doom nawle la de as nangu ko assumer say responsabilités ah xale bi wosin en tout cas en tout cas bu fi moom man ak ba dinañ ànd dem tuddu ji ko kooku moom c'est clair. ah j'ai compris. ah non Go man comprendre non c'est que deret moo fort non si erreur yi dal sa grand frère bu mu la dal. taw aussi waaw d'accord nga fi leb ma fi cent mille ma bañ xam naa loolu nga ma téye mais su fekkee loolu dong la rek kese xoolal non digul ma goo dinaa la jox cinquante mille soo bëggee ma defal la benn envoi tout de suite jox la benn cinquante mille bu soo bëggee ma jox la ko amul problème mais jugul si samay problème régler samay problème parce que là je suis dilemme bi nekk goo jóg ci goo waxal. goo dama ne ci ay problème góor yaay sama grand frère. ba du sama grand frère yaay sama grand frère. doucement Thiam doucement xam nga lépp loo gis rek dañ koy waxtaanee boo ma joxee yow cinquante war nga ma koo jox. laaj naa la cent nga ma doon dawloo boobu ba léegi te boobu lépp la woon boo ma joxee cinquante nga ma ko war a jox. bien fi waaw fii amul lu ñu mënta régler a ah. amul lu ñu mënta régler mais nag aussi tamit yàlla bu loo nattoo ci benn affaire nga yem ci bon da ngay assumer ses xam ni aussi tamit noonu noonu la yàlla dogal. mënoo échapper sa destin. mais góor na yow nag vraiment yaa ngi may bëgg a bett quoi yow tamit. non yow su nga yow grand frère nga d'accord tegoon naa la grand frère mais yow doo dara ah. non si bul erreur non si non maa ngi erreur yow que tu nages dans l'erreur parce que yow dañoo dugg sa nopp wax leer na ma la wax lii yëpp. non waaw booy ko tey ëmbalu ma ko suba. mais booy bi nga yow fu ne xorom polle nga ko. ay dama la ko ci li moom nga ci. day wax lu ko neex amul loolu amul man maa la wax li amul góor yow lan yow yow yow booy bi ngay gëm bañ maa gëm yow lan la. Mmh, fekk dul demewul noonu dama bañ erreur yi dal ba dal la rek waaw loolu rek la du leen mais mën naa la jàppale tamit. mais voilà loolu laa bëgg li nga may jox nii di wax noonu aussi tamit ma jàppale la. demal dama la jox léegi. ah loolu la koy yónnee léegi mu mu ñëw si yow lan la. mais eh, jàpp ci non dox ci wax ci tu es mon jeune la jàppale dinaa ci dox. waaw maturité ah. mais aussi ah. tamit il faut xam ni aussi tamit loxol kajoor day weesaloo quoi. waaw loolu la waaw mais man naa la xamante nañ maa ngi yow lan la xamante nañ bu baax yow daa xoolal message bi njëkk a ñëw sa portable xamal caam la. Hmm, dama koy envoyé léegi wala. dama la koy yónnee léegi tout de suite Hmm, waaw loolu dina ma neex. waaw dem la ko yónnee loolu dina ma neex. waaw xam naa ne tu n'es pas comme ba. sama numéro xam nga. 400 waay lan du dégg ma. waaw xam naa numéro bi. Ah, ah. xam naa numéro bi problème fii lépp la ñuy réglé lépp la ñuy réglé amul lu mënta lijjanti. waaw lijjanti ma loolu de. lijjanti rek xoolal na sama sama der na set wecc. turu caam na laa bëgg mu génn complètement ci wax ci. ko ko sama loxo parce que trop c'est trop nag quoi parce que gars yi xaw ma dañu liggéey xaw ma saa su ñu naan ma waaw man dem naa ba ko naan sax. dem naa ba ko naan sax man moom nekk na ñaar yoon. loolu xamul lu ma ko wax la. ah bon wax naa ko kow dañ maa liggéey déggu li ma la wax dañ maa liggéey. ñoom dañoo mystique. dañoo euh, te lu ci am na xola lu ci am lu ci bii na bala ak la vipère la. ja jabar dinaa ci taxaw te dinaa la jàppale incha allah. merci bu la dara métti nga ne message bi léegi ma ñëw léegi ma ici. Euh, Fatou Kiné dama bëggoon ñu waxtaan waxtaan bi nag waxtaanu jàmm ak salaam la yow xam nga ne du ma la doyee daray safaan gis naa nag li daw ci kër gi yëpp dara ump ma dégg naa fii lépp. mais lenn dong laa la bëgg a wax gis nga sa sëy bii bul nangu kenn di la ci influencé di la ci jële bi nga ñëwee ci kër gi ba léegi jàmm ak salaam nga fi wane loolu nga fi doxe loolu nga fi jëfe ñi nekk ci biir kër gi nag yor seeni jikko nga xamante ni dañ koo làmboo def ko xarit bu leen ma déglul en commençant nag ci sama jëkkër ci sa goro ba lu jiiñ njaag mooy njaag dégg naa Ndey Njaay ñëw na ci yow di la xamal ne le bu dafay doxaan bel doxaanul benn man du ma wax sax bel Amina laay wax doxaanu ko lépp ba moo ko tëgg ba bëggul lu dul xale bi ñëw sëy si kër gi ndax lan alalu àdduna sën mooy bàjjenu xale bi mais sën dafa opposé wu taxaw sën dem na ba wax xale bi ne ko est-ce que doo def nii walla nga def nii seen ku la bëgg la yow nag bul yàq sa way bul ma déglul ma sàmba bul ma déglul ma demba nday njaay fee tooj nañ ko fa maa xadi baaba amul luñ koy yàqul xas nañ ko wax nañ ko kete ma ndax nday njaay jikkoom bi du changé ñun nag ñooy xam ne nii la mel ñu muñ ko ànd ceeg moom ndax mooy suñu tuuru kër li may bañ nag mooy état bi nga toll ngay jël ay problème di ko insérer ci sa xol di stressé di indil sa doom lu jégaluma la ko conseil yi ma lay jox mooy déglul sa jëkkër déglul sa goro déglul sa yaay man bul ma sax déglu mais ñett ñii ma la wax gisuma ne ñoom ñett dañ lay dugal ci benn tuuxi doona ci jàmm ak salaam kese lañ lay dugal te nga jàppale nag say fukki loxo ñi ci des nag bàyyi leen ñoo xam liñ lay yéene ñoom yàlla nañ la ci jiitu su xam nga soo nekkee ci problème ku nekk day ñëw di wax. dëgg la. ci ngay xam nag ñi la bëgg ak ñi la bañ. dëgg la ñi la yéene jàmm ak ñi la yéene safaan. dëgg la Ndeye Ndiaye xam naa jikkoom. <laughs> du changé mais xam nga ñun jigéen ñi dañoo dañ kumpa. des mhm. fois di nga xam ne carrément kii seytaane la mais dangay nangu muy ñëw di la wax parce que dangay bëgg am information. dëgg la man mosuma xam ne bu ak bel mi ñoom ñaar dañ doon génn. mais ndey li ma wax lépp après dafay susciter sama curiosité parce que nee na ma ñoom ñaar ba ma nekkee xale ba léegi ñu doon génn bu moo ko bëggoon takk mais xale bi dafa euh, dafa xeeboon bu léegi nag bañ demee nii nii ci biir kër gi ñoom ñaar dañoo bëgg a takkaat seen sëy xam nga loolu soo ci xamul dara sa jëkkër waxu la dara ñu la jox information yow da ngay bàyyi xel. Ndeye loolu wax na loolu yëpp wax ko te xoolu ne man instant yi information boobu mun na ma stressé wala dara ak dara ak fi ma toll. waaye nag fàttali waaye mooy li ma la wax xam nga rek suñu lay wax dara sa jëkkër des fois da ngay dañ kopp da nga naan naa bëgg a xam li nekk ah, ci biir la moom Fatou Kiné yow moom meloo woon noonu yow moom yow képp ku la daan wax ci sa jëkkër da nga ko daan taaj mu toog nga tiiñal ko waaye lii nga def nii moom waroo ko woon a def moom mere naa la nga erreur de su doon yow tamit di nga déglu déedéet waaye yow exemple nga Fatou Kiné yow koñ bi gis nga xale yi jigéen yi fii di sëy yëpp dañoo bëgg ñëw xaritoog yow ah waaye yow dangaa gàtt tànk toog ndax lan moo tax ñu bëgg xaritoog yow sa jikko moo leen neex moo bëgg xaritoog yow man mii di wax ak yow xëy na ni nga dalee ak ni nga mel man mii di wax ak yow sa goro melu ma ko kon nag bul changé. dëgg la waaye tamit ne as gis nga sëyu jamono ji jëkkër yi dañoo war a yërëm jabar yi. loolu moom dëgg la asu góor ñi ñu ngi dagg xolu jigéen ñi dëgg la ñun ñun ñun yàlla dafa def ni benn hmm. jëkkër rek la ñu mën a am suñu lu ñu mënti def dañuy toog muñ suñu nawle yi xamuñu lu ñu nekkee ak lu ñu nekkewul suñu biir néeg yi xamuñu nit ñi lu ñu nekkee ak lu ñu nekkee nekkewul dañuy souffrir ñun ay xol lañ yor hmm. mais góor moom moo am droit dem di génn di doxaani def lu ko saf mais ñu aussi nañ ñu bàyyi xel tey ñu bu su fi indee cousinam ci biir kër gi di génn ak moom waaye nag na nag génnul ak moom nag yow doo bàyyi waxi génn nag doxaanu ko ah waaw mais nag nag déedéet yow ko yow waxi Ndeye Ndiaye ngay gëm ah non si comme fekkee waxi Ndeye Ndiaye ngay gëm man bàyyi ma man ma jóg dem waaw mais doxaanu ko nga ne da koy doxaan ah kay bu nee ma ñoom ñaar sekkuñu dara sekkuñu dara yow ba nga nekkee xale daanuñu la tooñee ni diw la laa na daanuñu la ko tooñee waa léegi moom moom kii di jabaru yoonu yàllaam ñu ka daan tooñee ba mu nekkee xale léegi mu màgg nga ne daf koy doxaan Ndeye Ndiaye bul ma ko déglu doxaanu ko doxaanu ko de génnal ci loolu te nga pare ci jooju wax yow kay tamit maa ngi lay sant Astou di la gërëm parce que sa taxawaay gis naa ko dégg fekkew ma na fi ngay waxee mais xam nga waxu kër gi moom ku nekk dinga jot sa wàll yëg naa fi nga ma taxawu jàppale nga ma su la neexoon nga ne du ko def sama yoon nekkul ci Fatou Kiné du sama goro man injustice bugguma ko man loolu noonu defuma ko ngir yow de dama ko def parce que dama buggul injustice ndax dama koy xool ci sama bopp bu doon man du ma neex te Fatou ne yow ku baax nga defoo fi lu tax ñu war laa def yenn wala ñu la koy teg loolu kese la man ka maa ngi ci moom sa xel na dal sëy daane ma